taaru réew moo di chaque situation il faut que nga dawal xam-xam ndax yàlla boroom xam-xam yi la waxal te réew ñi yàlla dimbali te réew war a baax mooy ñi nga xam ne am nañu fit am nañu full am na ñu gis-gis bu rafet. xam nga ne dama am dama am dafa il faut que nga accepter le principe de la non fixité maanaam li nga xam ne yàlla moo ko tënkee àddina mm-hmm. mooy àddina tëjuwul ci benn place yam ci. tontu ba nga indi woon ca at daaw ak bërki daaw yaa cinq an ans mënuloo ko répété tey jii année phénomène bu nekk ci évolution wu doomu adama yi alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne tey jii société bi wax nga ko wax ju am solo mooy que ni lu dandu rek am lu bees lu ko remplacé mm-hmm. loolu processus dynamique gu réew mi la sama teraanga la man xam nga lu tax mu doon sama teraanga ndax jëf jooju ma defoon as ngone ku ma féete ndaw ku nekk booy ñëw mm-hmm. man ak samay jëfi morom. Mhm. si ngay jàng sa action politique. si ngay xam ni ku mel na Cheikh Bamba Dièye bu fi jaaree am lu mu defee nii kon man bu ma ñëwee dama war a adapté affiné yokk parce que loolu mooy principe d'évolution sa ne veut pas dire que je suis obsolète ou que je suis en retrait non c'est que nag am na ñoo xamee ni démb ñoo ma jiitu woon seen place tey foog ma toogee ka pour que ñeneen mën toogee sama place. d'accord man na euh, ni nga ni nga ni nga philosophé ci tontu bi man euh, <laughs> daf ma daf ma daf ma daf ma daf ma daf ma daf ma doyul. Mhm. parce que man pour man combat politique amul place booy xajalee amul leneen. parce que loolu yaakaar naa ni am na fi ay ay références yoo xam ne gis nañu seen taxawaay ci politique pendant vingt six ans ñu nekk opposition seen xeex musul changé bu ñu waree dem kaso dem nañ kaso suñu waree génn ci mbedd mi génn nañ ci mbedd mi nekk référence ci wàllu politique ñu gis leen kon man boo mu bëggee yeyee am na ñoo xam damaa war a toog place am ñu war a ñëw suma place ci politique dinaa ci am lu ma jaaxal. mais li nga xam ni bëgg naa bëgg naa ñu ñu ñëw ci mooy xam nga aussi comportement yi la ñuy jugé. Mhm. su ñuy wax des opposants dealers. Mhm. teguñu ci gis la nga nga nga am di nga am deal nga teg mhm. yi la ñuy jugé de dealer. comportement yi ñuy jugé de dealer mais dafay dañ koy gis aussi parce que bu ñu gisee koo xam ne gisoon nañu ko euh, mu nekkoon ku ku ku ku féroce. tey ñu gis ko mu nekk leneen mais loolu mën nañu yaakaar ni gis nga ci affaire boobu mën naa la ci indi déjà dernier combat yi nga xam ne ñu ngi ko engagé que ce soit sur l'électricité ci wàllu courant bi wala bokk ci wàllu élection yi jàpp naa ni ci diggante am Karim Wade indil xalifa Sall am yóbbu procès texte je pense que ni sénégalais bu ñuy seetaan rek tey wax dëgg di nga xamee ni bu jamono férocité jotee ak intransigeance ci ay principe loolu moom tey la waalo gën a ay. d'accord amul kon amul benn yoon parce que tout ça xam nga lu tax. ndax damay wax toujours ni man. Mhm. si politique. yow yàgg ngaa dajale ku mel ne Cheikh Abdoulaye Dièye ci sa plateau. Mhm. te man gëm naa ne moo ma gën foofu moo ma gën a jub moo ma mhm. gën a gëm yàlla. Eh, mooy suma leader. mooy suma royuwaay. et dafa ma daan wax ne la bay doon dundee ba sax si kim war naa mën a continuer loolu ba faatu. et c'est ça ma trajectoire et je n'y pas du ma si mos a wàcc. d'accord xaw ko révéler sax muy diggante Idrissa Idrissa ak Macky Sall euh, Idrissa xëy na xam nga ko parce que ci élection yi ñu génn euh, ànd ngeen nga jàppale ko ci ci ci ci ci ci présidentielle yi nga xam ne génn nañ ko mais li nga xam ni itam jib na mu tukkee ci benn taskatu xibaar yi ñu koy wax Cheikh Yérim Seck mu wax ni am na benn deal ba teraanga ndox ci seen diggante euh, loolu boo boo ko analyser ci doxalinam ak ni nga xamee ni kenn déggul mu wax ci loolu lan la lay inspiré. benn bi njëkk wax mooy man du ma firi géntu jàmbur. Euh, sérieux wul mhm. ci sama démarche te dëgg-dëgg nit nag day àtte loo xamee ni fekke na ko li nga xamee ne moom laa jot te y a pas très longtemps jot nañu waxtaan ñu nemmee compté comme ñi nga xamee ne ay alliés la ñu woon li ma mën a wax daal man ci jëmm ji ba may gis lu ko weddi loolu lay jàpp mooy que nit tàmmal na ma suñu diggante amul wóor-wóorloo lu ñu war a wax dañ koy wax te jàpp naa ni aussi fa mu taxawoon foofu la taxaw su ma amee leneen lu ko weddi nag dinaa ko analyser li nga xam ne moom laa mën ci dolli aussi moo di que ni ci situation bi lu waay rendi rek ki sa loxo lay naaj donc il faut que ñun sénégalais yi. ñu am lan nga bëgg wax ci ñu am ñu am lan nga bëgg wax ci confiance lan nga bëgg a wax ci moom laa foofu laa lay que ñun ñu am confiance que ni ñëpp macha allah ay nit yu yeewu ñoo nekk ci réew mi. Mhm. il faut que ñu am confiance aussi que ni ku nekk mbaax gi ngay wootal ki sa bopp. boo sérieux tuuti war nga ko mën a yaatal ba mu yegg ci ko nekk donc dara jaru fee yàkkamti ba ñuy suppité wala ñuy xalaat wala du njort te wolof nee na wala alxuraan nee na njort lu bare sax bàkkaar la donc par conséquent munumaa man ci loo xamee ne fekkewu ma ba ñuy réunion xaw ma nu ñu réunion wi ma xëy suba dégg ci rajo rek ñu diw nee na nangam te acteurs yi nga xamee ne ñoo ko ŋànk demuñ tukkiwuñ ñu ngi ci réew mi. mais mais mais ci euh, wax honorable xam nga du ci li nga fekkee rek lañ lay laaj. ci xalaat la ñuy waxtaanee xalaat analyse la dangay gis ay ay démarches gis ay comportement gis ay signaux. nga ni man lii kat lii laa ci jàngat. waaw bu ñuy wax analyse mais loolu tax ñu koy wax. mais Pape est-ce que nangul na mën naa la nangul sax maandu mais mënu ma nangu aussi nga maandu ba ne ma doo analyser. déedéet yenn comportement yi ak yenn discours yi gis nga man li may analyser. waaw mooy li feeñ li fës. Ah. lii kumpa lii kumpa man ak yow lott nañ ci di ko jéem a analyser parce que en ce moment là dinañ dugg ci situation boo xam ne du suñu bos. li ñu mën a wax kañ mooy. d'accord léegi question bi gën a claire. Hmm. dañu génn ci ay élection uh-huh. mu am ku gagné am ku ci topp. ñu mën a jàpp ni kon kii mooy opposant naturel ay la yoon nañu waxante dëgg est-ce que ni nga gisee comportement jàpp nga ni mooy comportement opposant naturel. mais en réalité mais man mënuma ci ma mais dans une situation extrêmement difficile xam nga tax parce que ba far dee far ci premier far dama am suma parti far fa su may itte man yóbbu ma di ma motiver au quotidien action politique ak situation nationale réew mi ci ay élection dox ñu àndandoo daje ci ay élection bu ñu génnee si élection dëgg dëgg dëgg dëgg boo mu buggee taxawloo. ma waroon ko évaluer. non waroon ko évaluer. loolu suñuy problème la ci suñu biir suñu problème la suñu biir ça n'a rien ak li ngay tudd nii parce que li nga wax léegi dafay supputer wala muy supposer leneen loo xamee ni man boog ça ne m'intéresse pas. parce que amul tax intéressé wu ma ko parce que wax ju mu mënti doon na nga doon wax joo xamee ne yow mi ngi koy indil. di nga am loo ci teg wala loo ci ñaan yàbbi ci je suis aussi incapable avant may dugg si bi moo fi génnee ni mu ma wéree ni loole ñuy wax naan gisee naag gisewul waxtaan naag waxtaanul lu ma lënt la lu ma xamul dara la comme am naa loo xam ne nag wirul damay jàpp ca la ma amoon jéem honorable man de wax dëgg yàlla damay laaj te da ngay wër wër loolu tontu bi man looloo ma ci jaaxal parce que d'accord na ak yow ci sa ci sa ci sa ci sa mandute mais dama ni la dañu génn ci élection mu am numéro un am numéro deux kii ñu wax ni mooy gouverner kii ñu wax jàpp ni askan bi jàpp ko pour mu nekk opposant waaw mais man man mii tamit xam nga man foo bëgg nga wax ma. nu xam man foofu laa jëf foofu laa jëfe ni yow da sa bopp da nga juum ci question bi parce que tey jii bu ma doon ñooñu réew mi bokk sa biir parti boobu. doon na jàll ci man nga laaj ma ko mais man samay. waxuma parti de coalition la. non non non non non non jaawale coalition non non parce que coalition parce que dafa nekkoon sa leader. non attends tuuti coalition ci coalition dafa nekkoon sa leader. non non non non pas coalition. non man waxuma parti moi je parle de coalition. nga xam ni yow da nga ci nekkoon ci biir coalition gis nga coalition. waaw kay dafa am diir ak dogal. coalition éternelul. Mhm. dafay am séquence temporelle boo xamee ni fa lay. bu ko génnee génn na ko. ah Benno Bokk Yaakaar moom éternel. non non man waxuma Benno Bokk Yaakaar man daal li ma mën a li ma a wax daal. voilà donc bu ñu wax li ma li ma ŋànk man. ak li ma ñor man. Mhm. ak li nga xamee ni moo ma impliqué. ak li nga xamee ni moom laa mën a wax. d'accord donc aussi am na ci loo xamee ni mënul nekk ci man. et je ne peux pas et je le ferai pas. pour la bonne et simple raison que j'estime que ni yéen ñi nga xam ne ay journalistes ngeen ay acteurs ay acteurs ngeen pour suppuser information bi am ngeen sañ-sañu ñi nga xam ne au premier chef. ils sont impliqués. ñooñu joxe ci tontu parce que man bu ma si doon joxee tontu tey non non bu ma si joxee tontu tey crédible si nii crédible si ne parce que lu tax dama am samay mbiru bopp. waaw mu ñor ma képp. war a doon sumay préoccupation wulis may dem di dugg ci biir kër jaamur di seet nañu taxawee te mu wér ni ma la ñu fay wax ak la ma fa la ma fa war a wax ma ci dara mais Cheikh Bamba da nga fàtte ni dañu génn ci élection nga ni fal leen ko absolument waa léegi tey nga bëgg taxaw wax ma lii nga ma bëgg wax. non lii ma la wax taxaw nga battre campagne pour ñu fal ko. waaw mais lii ma la wax nii nga wax programme am wax jikkoom wax leneen ak leneen. lii ma la wax nii amul benn contradiction amul benn contradiction ak posture bi ma amee tey jii parce que posture yi mooy posture responsable. d'accord mooy posture kilifa. d'accord te am na ci loo xamee ni. dëgg dëgg dëgg dëgg sa jotaay neex na ma lool. waaye mënumaa forcer man. ok ba ma wax lu ma xamul. waaw wala mënumaa forcer ba ma engagé. ci di interpréter loo xam ne mënumaa déterminer. tenant yeeg aboutissant yi. d'accord léegi ci laaj bu mujj rek ci wàll boobu. Mhm. Euh, taxawaayam en tant que opposant nan ban gis-gis nga ci am moom Idrissa Seck. man de jàpp naa ni que ni moom mag mu am xel la. bu am activité politique bu yaatu. nit njaay la. non maa ngi fàttaliku Abdoulaye Wade mu ne nit njaay la. waaw waaw par conséquent. Ah. Mhm.